mbokki Sénégal mbokki Gambie mbokki axlu lamb jamaykee njiital jëm production lépp lu mu leen mës a wax ci lamb rek teg ngeen ci seen bët bërki dee boo jaay ci face à face ba diggante leket ak France diggante building ak booy bàll ca stadium bu Bakaaw ba ñu ci jógee dañoo ne jam production wàccoo nag mbokki amateur yi mu ne am na lu des nag ndax damaa fa séene tëgg la combat du siècle le 7 mars bi ñu dëgmal yóbbu ko ca stadium bu Serekunda muy combat bu mag ba diggante building ak booy bàll ma ne mbokki amateur yi keroog ba waa Serekunda mbooloo ñëwee fekk fa waa jabang ca face à face ba ba building kenn du ko lijjanti mu ne bile combat nag le mars laa koy tëgg coow li jeex ko drapeau Rocky Malick Lo nekk maire bu Banjul nekk ku Banjul di tiitaroo ki nga xam ne liggéey bu rëy bi muy liggéey ci Banjul ñépp ci teg seenu bët combat spécial ba mu ne diggante bébé xarañ la bu jëf jël ak amical bu rut muy drapeau Idrissa Ndiaye sëtul ak daawur bi ki nga xam ne diggante Gambie Sénégal du ci xool kenn di sëgg troisième combat ba diggante malien bu Mara lay doon ak Ama bu Serekunda gëm bu Thiès Prestige beneen combat ba mooy dox ci diggante Lion drapeau mouvement action bu professeur Daouda Ndiaye cinquième combat ba diggante gaf bu yundu mbooloo lay doon ak boy navek bu yuna boobu la ñu duppe drapeau Demba Xarañ Lo volim bu Ebo Town mbooloo war faa dajeg tee max bu budung nurat bébé soldaaru baay bu paradise mbooloo war faa dajeg bébé kolobaan bu tali mbooloo artiste bu këlëm dugg kebe war faa taseg ning ki nanka bu ékiri bakaaw yile combat yu rëy la jamaykee dëxëñ ci bile mars ñen ñooy de ville bu Kaolack Papis Demba Cissé l'international jamaykee ñan ñooy say partenaire mu ne samay nit yi daaw mooy samay nit yi ren maa ngi ànd ak White House Residence Xelcom automobile Nice and Sick by ak BMG Property ci wàllu média maa ngi ànd ak Télé Futur di la TFM ànd ak Wasaare Lamb ànd ak Lutte TV ak mboolem ñiy tas xabaar ci diwaanu Gambie ma ne mbokki amateurs yi bés baa ngoog journée bu rëy baa ngoog combat bu rëy baa ngoog drapeau madame le maire a ngoog muy le 7 mars 2021 ci stade bu Serekunda diggante building ak Mama Jang, you fat your bindo kito gay mo gorrabe. Mama Jang. maja jufa chumbi ndoki toka imo korra pa Zaine ya wambuk mangare gai ngato sumlingere Mangare gari ngato sumlingere Zaine ya wambuk mangare

wambuk mangare garinga dosum lingere Seniara wambuk mangare garinga dosum lingere Seniara wambuk mangare garinga dosum lingere Seniara wambuk mangare garinga dosum lingere yo saja jambailo faka mamuni onta kamandude yo saja jambailo faka mamuni onta yo saja jambaylo faga mamuni honda kamandude nang yo saja jambaylo faga mamuni honda kamandude nang yo saja jambaylo faga mamuni honda kamandude nang yo saja jambaylo faga mamuni honda kamandude nang yo saja jambaylo faga mamuni honda kamandude nang yo yo saja jambailo faga mamuni yonta kamandune nang yo saja jambailo faga nang yo saja jambailo faga mamuni yonta kamandune nang yo saja jambailo faga mamuni yonta kamandune nang yo saja jambailo faga mamuni yonta kamandune yo saja jambay lo faga mamun yonta kamanune yo saja jambay lo faga nang yo saja jambay lo faga mamun yonta kamanune yo saja jambay lo faga nang yo saja jambay lo faga mamun yonta kamanune yo saja jambay lo faga nam yo saja jamba ilo faka mamun yo onta kamandude mariona no kalumalaya beske jaiwa kamandude mariona no kalumalaya beske jaiwa kamandude mariona no kalumalaya beske jaiwa kamandude mariona no kalumalaya beske jaiwa kamandude kaw kaluma laya mbeske njaay wa kamandu de no kaluma laya mbeske njaay wa kamandu de ngariona no kaluma laya mbeske njaay wa kamandu de no kaluma laya mbeske njaay wa kamandu de ngariona no kaluma laya mbeske njaay wa kamandu de ngariona no kaluma laya yo nando kaluma laya bes ke njaay wa kamandune yo nando kaluma laya bes ke njaay wa kamandune ngar yo nando kaluma laya bes ke njaay wa kamandune ngar yo nando kaluma laya bes ke njaay wa kamandune ngar yo nando kaluma laya bes ke njaay wa kamandune ngar yo nando kaluma laya bes ke njaay wa kamandune Mario nan dogaluma laya mbeske njaay wa kamandune Mario nan dogaluma laya mbeske njaay wa kamandune Mario nan dogaluma laya mbeske njaay wa kamandune Mario nan dogaluma laya mbeske njaay wa kamandune Mario nan dogaluma laya o kaluma laya mbeske njaay wa kamandune ngariona no kaluma laya mbeske njaay wa kamandune ngariona no kaluma laya mbeske njaay wa kamandune ngariona no kaluma laya mbeske njaay wa kamandune ngariona no kaluma laya mbeske njaay wa kamandune ngariona no kaluma laya na nogalu malaya mbeske njai wa kamanune garima dogorma kwesinga mudozaro korsalie e garima dogorma kwesinga mudozaro korsalie garima dogorma kwesinga mudozaro korsalie e garima dogorma kwesinga mudozaro korsalie garima dogorma kwesinga mudozaro korsalie e farima gorma gwesingan mundur saro korsalie Evarimando gorma gwesingan mundur saro korsalie Evarimando oh, gorma gwesingan mundur saro korsalie Evarimando oh, gorma gwesingan mundur saro korsalie Evarimando oh, gorma gwesingan mundur saro korsalie Evarimando arima ɗo gorma kwesigan mboɗo saro gorsalie e barima ɗo gorma kwesigan mboɗo saro gorsalie e barima ɗo gorma kwesigan mboɗo saro gorsalie

mais mosoo koo gis. non mosuma koo gis nag. mu mel ni yaa final woon barki démb tey loo jël loo wut si. waaw ño ñoo ñoo ñëwaat ñëwaat compétir rek lu ma yàlla may nga xam ne la quoi. tey ren lan nga amagul. tey am na ñaari ñaari final maa jël maa jël fii lamb bañun fi xaw ma biir Serekunda maa ko jël maa jël dànk nag bi. alhamdulilah yaa ko finalu barki démb. waaw maa fi finalu ñaan ñaan yàlla ko finalu waat fii tey looy wax sama morom yu fi nekk tey lan nga leen andil loo andil lu bees. lamb ji fii <laughs> maa lay ziar. waaw maa lay doolu ziar Xaadim maa lay doolu ziar waaw gis nga laa faa jëndeer laay waso maa ngi nuyu waa jëndeer ñëpp. di leen si waaw doom surtout Abdourahmane Ndiaye faram bi moo nekk nii ñëw fii Gambie incha allah fee toj incha di wax waa jëndeer nañ ñu xaar incha allah siifuur ñu tamit mooy loolu noonu bëgg nañ fee indi lu bees pour incha allah. luur bi wala lese bi. non instant ñu si poids bi benn poids mooy daw instant bi nii. poids waaw raw gàddu la gisoo waaw ah, mais nag noonu la teewul mooy loolu tuun mooy def ñi mujjee incha allah. bu dee cent yi mooy mujjee loolu moom bind nga nga teg fii. final kon. maa ngi di la grand grand frère maa lay siyaar bu wér. noonu la demee nag Petit Lo sama lonko la. mais chaque jour ba léegi yaa ngi ci gis nga damay. damay rek. waaw di wut doole di xaar Ndakaaru quoi. mooy loolu noon ak ñëw di jël incha allahu rabbi noonu la demee quoi. tey ñu ma gis fii nii nii tey tey tey jënd yu baax la de. ah non man jël naa laam yu gën a diis. laam yu gën a diis. bilaay walaay taalaay xam nga ne yow la xam nga ne yow la lambu ñaaxar rek mooy gën a diis fii. waaw fii samp ma gis ñaaxar gisuma leen fii. aca yankaaw waaw waaw Bamba Seck maa lay siyaar baay dellu siyaar sori ngeen de wala ñoo sori ah, tey de tey de kaarang la waaw kaarang la man moom fii min naa ko ah fii sa dëkk la waaw yàgg naa fi waa ci si mais tey ci la sa bi laa la gis nga bindu. waaw dama waaj si tey man moom xale rek. Eh, mooy loolu. da ngaa wàññi niveau bi de. non bi sax man xale laa samay morom da ngay bëre poids léger dama koy jaante yenn saa yi sëgg ci luur bi rek. Ah? yee noonu la demee. guddi guddi. Doudou Baka Sarr benn tale dañ maa yàlla ma yàlla suturaal defal ma jël ko. instant xaw na xaw na meer ci man de. Ah? waaw yàlla ma yàlla suturaal rek tey. premier tour ngay daan. Eh, no man du ma mbër premier tirage moom. Ah. waaw. nga jëm. waaw loolu laa ñaan yàlla. Sa Thiès 50 nga nii. aja doom yaa ana waa 50. waa 50 nga fa rek moo war a jël laam ji yóbbul leen ko bari Serigne Touba. frontière yi gis nga comme que fële kay am ñu laam lu ñuy def ñu ñëw fii rek jaayante ka. kon tey da ngay mbapat. damaa ñëw pour jël ko de waxuma la ay caaxaan nag. ñi fi jaar ñëpp na ma dañ koy jël. mais ñu ko jël fii ay mbaam àll rek a fi daje te mbaam àll bu mag baa ngi. war na Serigne Touba. laam yi guddi guddi 50. ay la fancière de 50. mama ngor cosaan la may mariama seor mbasisi njofa mama ngor cosaan la may mariama seor mbasisi njofa mama ngor cosaan la may mariama seor mbasisi njofa mama ngor cosaan la may mariama seor mbasisi njofa mama ngor cosaan la may mariama seor mbasisi njofa mama ngor cosaan la may mariama seor Mariama se or basi sinjufa mama ngor cosaan la moye Mariama se or basi sinjufa mama ngor cosaan la moye Mariama se or basi sinjufa mama ngor cosaan la moye Mariama se or basi sinjufa mama ngor cosaan la moye Mariama se or basi sinjufa mama ngor cosaan la moye

Samba Cissé Ndioufa mama Ngor cosaan la mooy. Mariama Se Ngor Ba Cissé Ndioufa mama Ngor cosaan la mooy. Mariama Se Ngor Ba Cissé Ndioufa mama Ngor cosaan la mooy. Mariama Se Ngor Ba Cissé Ndioufa mama Ngor cosaan la mooy. Mariama Se Ngor Ba Cissé Ndioufa mama Ngor cosaan. Mariama Se Ngor Mbasir si Ndiofa mama Ngor cosaan la maye. Mariama Se Ngor Mbasir si Ndiofa mama Ngor cosaan la maye. Mariama Se Ngor Mbasir si Ndiofa mama Ngor cosaan la maye. Ami yo ndongwa jidala ye tavana na lumba yange. Ami yo ndongwa jidala ye tavana na lumba yange. dong wajina lae davana hana lumba yange amiyo hana lumba yange e amiyo dong wajina lae davana hana lumba hana lumba yange e amiyo dong wajina lae davana hana lumba yange e wajidalay ta fanaanal lumbayange amiyo dong wajidalay ta fanaanal lumbayange e eh, amiyo dong wajidalay ta fanaanal lumbayange e eh, amiyo dong wajidalay ta fanaanal lumbayange e eh, amiyo dong wajidalay ta fanaanal waji dalaye dafa na na lumbenga amiyo dog waji dalaye dafa na lumbenga e eh, amiyo dog waji dalaye dafa na na lumbenga amiyo dog waji dalaye dafa na na lumbenga e eh, amiyo dog waji dalaye dafa na na lumbenga amiyo dog waji dalaye waajidala ye labananalu bayange. Eh, Ami yoo dong waajidala ye labananalu bayange. Eh, Ami yoo dong waajidala ye labananalu bayange. Eh, Ami yoo dong waajidala ye labananalu bayange. Ami yoo dong waajidala ye labananalu bayange. Ami yoo. gwajindala e tafanana lumbayanga e amiyo dongwajindala e tafanana lumbayanga e amiyo dongwajindala e tafanana lumbayanga e amiyo dongwajindala e amiyo ɗogwa jindalaye tafanana lumbayage e amiyo ɗogwa jindalaye tafanana lumbayage e amiyo ɗogwa jindalaye tafanana lumbayage amiyo ɗogwa jindalaye tafanana lumbayage e amiyo Ndongo ajindala ye tafana ana lumba yange Amiyo ndongo ajindala ye tafana ana lumba yange Eh amiyo ndongo ajindala ye tafana ana lumba yange Banumbu ya zayena rogo ya baye bolage Eh banumbu ya zayena rogo ya baye bolage Banumbu ya sayana rogoyal fay e folenge banumbu ya e ya sayana rogoyal fay e folenge banumbu ya e ya sayana rogoyal fay e folenge banumbu ya ya sayna rogo yal fare falenge banumbu ya sayna rogo yal fare falenge e banumbu ya sayna rogo yal fare falenge banumbu ya sayna rogo yal fare falenge e banumbu ya sayna rogo yal fare falenge banumbu ya sayna banumbu eh, ya zayena rogo ya alfare eh, falenge banumbu eh, ya zayena rogo ya alfare falenge e banumbu ya zayena rogo ya alfare falenge banumbu ya zayena rogo ya alfare falenge e banumbu ya zayena rogo ya alfare falenge banumbu ya zayena rogo ya alfare falenge e banumbu ya sayena rogo ya alfare falenge banumbu ya sayena rogo ya alfare falenge el banumbu ya sayena rogo ya alfare falenge banumbu ya sayena rogo ya alfare falenge e banumbu ya sayena rogo ya alfare falenge banumbu ya sayena rogo ya alfare falenge e banumbu ya sayena rogo yan fare falenge manumbu ya sayena rogo yan fare falenge e manumbu ya sayena rogo yan fare falenge manumbu ya sayena rogo yan fare falenge e manumbu ya sayena rogo yan fare falenge manumbu ya sayena rogo yan fare falenge e manumbu ya rogoy alfarre folenge banumbu ya sayena rogoy alfarre folenge e banumbu ya sayena rogoy alfarre folenge banumbu ya sayena rogoy alfarre folenge e banumbu ya sayena rogoy alfarre folenge e banumbu ya sayena rogoy alfarre folenge e banumbu ya yaar fare folenge ebanumbu ya sayena rogo yaar fare folenge ebanumbu ya sayena rogo yaar fare folenge ebanumbu ya sayena rogo yaar fare folenge ebanumbu ya sayena rogo yaar fare folenge minister kakasina wondo nyana de no parade Kagam sena wondo nyanan ye nongkor hadia Eminiter eh, kagam sena wondo nyanan ye nongkor hadia Eminiter eh, kagam sena wondo nyanan ye nongkor hadia Eminiter kagam sena wondo nyanan ye nongkor hadia Eminiter eh, kagam sena wondo nyanan ye nongkor hadia Eminiter kagam sena Dakar sena wodo nyana ne do korode Eminiter Dakar sena wodo nyana ne do korode Eminiter Dakar sena wodo nyana ne do korode Eminiter Dakar sena wodo nyana ne do korode Eminiter Dakar sena wodo nyana ne do korode Eminiter Dakar sena wodo e militaire ga gabse na wodo ñanani e no gorode militaire ga gabse na wodo ñanani e no gorode e militaire ga gabse na wodo ñanani e no gorode militaire ga gabse na wodo ñanani e no gorode e militaire ga gabse na wodo ñanani e no gorode militaire ga gabse na wodo ñanani e no gorode e militaire Kakaze na wando nyana ni no korade Minite kakaze na wando nyana ni no korade Minite kakaze na wando nyana ni no korade Minite kakaze na wando nyana ni no korade Minite kakaze na wando nyana ni no korade Minite kakaze na wando kase na wodo nyana ni no korade boj fajuti jovaja minwen kim kandola jege e faya yo boj fajuti jovaja minwen kim kandola jege e faya yo boj fajuti jovaja minwen kim kandola jege e faya yo boj fajuti jovaja minwen kim kandola jege e faya yo boj fajuti jovaja minwen kim kandola jege Boj faju tinjo faja min wen gim kan dolan jege Boj faju tinjo faja min wen gim kan dolan jege Hey faya yo Boj faju tinjo faja min wen gim kan dolan jege Faya yo Boj faju tinjo faja min wen gim kan dolan jege Hey faya yo Boj faju tinjo faja min wen gim kan dolan jege Faya yo Boj faju tinjo batu jorro zumbire ala ele jode na tije ala ele jode na tije batu jorro fiundire ala ele jode na tije jorro fimbire ala ele jode na chije manu jorro fimbire ala ele jode na chije manu jorro fimbire jor